S'il vous plaît. kaay yàlla yàlla wala mu yaatu mu yaatu mu yaatu. mu yaatu mu yaatu. saa mu yaatu yow tamit s'il vous plaît. voilà on laisse les mu yaatu mu le seuil de donc. saa mu yaatu mu yaatu da ngeen ko mu yaatu. vers espace. Le micro, s'il vous plaît. Allô. Le micro. Micro bi ñëwul de. Le micro. am am. Le micro. voilà. sama sama léegi nekk si léegi. ñu wax xale yi ni leen. na yàq na yàq na yàq. écarté écarté. Abdou Mbow. ngay écarté écarté. waaw écarté encore. écarté encore c'est bon. écarté écarté kay sécurité écarté écarté bu yaatu. donc ñu ngi dox. écarté s'il vous plaît. voilà. on est ensemble on est ensemble on est ensemble. et au niveau du manqué. kay mooy écarté wu écarté wu la gars yi. donc on va demander ici. Euh, explications à monsieur le ministre. Voilà. Okay. Voilà, merci monsieur le ministre. On va maintenant laisser donc euh, on avance à sur bandeau on va aller du côté du terrain. Donc euh, président, vous pouvez enlever vos bandeaux. Merci beaucoup. Accommodation, donc ne regardez pas automatiquement. Maintenant, voilà, nous allons donc nous euh, accompagner, nous allons directement voir le, football des aveugles appelé Cécifoot. Allez, xamu leen si dara da ngay sëgg da ngay sëgg monsieur le ministre maa ngi ci côté gauche